salaamaaleykum wa rahmatulah waa maa ngi leen di bu wér a wér waa di ñëwaat di defaat vidéo bu am solo si lan lañ tuddee usager usager nag boo ko déggee soo gisee feuille bi ma def ko nii mu nekk code de la da dama si wax ne code de la dafa am ñu mu tuddee usager ndax code de la moom euh, bu fekkee da ngaa génn si dëkk bi rek commencé dox si mbedd bi rek code de la route da lay sóoraale. nekkul ne kii dawal oto kese moom la code de la route bi sooraale waaye kii dawal bépp xeetu euh, loo xam ne day daw loo xam ne da koy yor di dox loolu yëpp da nga lay considérer ak yow miy dox si usager yi la maanaam ñiy jëfandikoo tali bi ñoom moom mooy usager code de la route léegi nag buñ ne nee usager mooy usager mooy képp ki nga xam ne nii day génn si mbedd mi di jëfandikoo yoon wi ñooñu leen tuddee usager code de la léegi si vidéo bi dama si wax tey jii kañ ngay doon conducteur ak kañ ngay bañ a nekk conducteur su fekkee euh, loolu laa bëgg expliquer si vidéo bi di leen wax aussi euh, merci si commentaire yi di leen wax en plus commenter euh, partager les vidéo am na si solo pour ñu gën a yokk xam-xam bi gën ko yaatal ba Sénégal yëpp jot si ndax jubluwuñ si lenn lu dul wàññi accident yi. ndax accident yi bëri na te suñuy mbokk ñooy dee te ñun ñoo si dee loolu nag mooy waral tey jii ku ko déglu mu ngi koy yaatal yaatal ko sa beneen mbokk jullit moom mu jëriñu waaw comme bu ma ñëwee si table bi stop tey jii ñii di dawal vélo tey jii boo xoolee yi lañ tuddee ay euh, véhicule ay jumtukaay yoo xam ne nii amul moteur mais bo si utiliser rek considéré nañ la comme. ku koy dawal comme conducteur vélo bi boo koy dawal conducteur nga ñaari velo yi yëpp boo mais boo si yor bu ne conducteur nga bu dee puus puus puus nga toog comme nga nekk handicapé euh, conducteur ngay doon après bu fekkee da tamit danga da ngay jël caravane bi lonk ko si sa oto boobaa aussi conducteur ngay doon mais ñii ñëpp dañ leen tuddee ay conducteur euh, véhicule maanaam jumtukaay yoo xam ne amul moteur bu fekkee nag ñi nga xam ne dañ leen tuddee ay conducteurs yi nga xam ne mooy jumtu jumtukaay yi nga xam ne dafa am moteur mooy ñeenti oto yi ñeenti oto yi ba si dama ko dama ko yemale fii mais ba si scooters yi engins yi euh, euh, moto yi ñooñu ñëpp dañ nekk ay conducteurs conducteurs yoo xam ne nii di utiliser jumtukaay yoo xam ne dafa am moteur oto bi camion bi bus bi ak xeetu tracteur bi ñëpp. dañu bokk si ñi nga xam ne jumtukaay ñi ñi ñuy soxla maanaam jumtukaay yu euh, bu ànd ak moteur la waaw xam nga fii bu dee si réew yi nga xam ne ni ñoom ñoo bind code de la route lu mel ni euh, Europe ñoom am nañ seen livre code de la route yu ñu bind Sénégal nag lu mel ni Afrique ñu livre code de la route waaye dañuy dañuy dépendre si code de la route yi nga xam ne moom la fi tubaab yi nekk léegi moo tax nag dañuy def différence boo xoolee kii nii moto bi mu yor ñun tey jii mun nañ ko tuddee moto mun nañ ko tuddee engin mun nañ ko tuddee scooter mais tubaab bi mi ngi ko tuddee cyclomoteur cyclomoteur nag moo naam soo ko déggee mooy euh, moto boo xam ne maanaam scooter boo xam ne nii cylindre yi magul comme kii boo doon xool cylindre bi da nga naan cylindre bi cinquante cc la jëm soixante dix maanaam puissance bi mun a daw soixante dix lay am ba cinquante soixante dix wàcc jëm si suuf léegi kii nag tey jii dañ leen considérer cyclomoteur léegi bu dee da nga yor cyclomoteur bu paan sooy dox waroo dox si kaw tali bi da nga war a dox si territoire bi parce que da nga mel ni ku yor velo maanaam. sa puissance su kii dépassé wul soixante dix kon dañ lay considéré kon ku yor vélo bu dee nag vélo nga yor vélo bi paan vélo bi mënutoo ko pousse si kaw tali bi bii nag dina ma permettre ma expliqué waat beneen bi nga xam ne moom lañ tuddee motocycle motocycleur motocyclette waaw moo nekk ni bii mooy motocyclette mooy bi nga xam ne nii puissance bi day jëm cent vingt cinq jëm si kaw deux cent cinquante jëm si kaw day yor comme puissance su oto gaaw wala gën a gaaw oto euh, léegi nag ñii dañ leen tuddee ay conducteurs motocyclette léegi comme oto bu ñu paanee dañu mel ni oto bu paan donc dañuy mënuñu yéeg si kaw trottoir bi dañu war a dox si kaw chaussée bi si kaw euh, route bi tali bi mais nag bu ñu siy dox dañu war a sol casque comme kuy dawal comme kuy dawal moto bi. waaw ñii lañ tuddee motocyclette même bu fekkee tamit sa oto dafa paan nga nekk si tali bi di ko puus yooyu dañu la considérer comme conducteur nekkatoo euh, passager nekkatoo piéton nekkatoo euh, usager simple donc ñii ñëpp dañ leen considérer ay conducteur comme moto bi ak moto bële loolu moo leen différence boo xoolee bii dafa am matricule beneen bi amul matricule même bu fekkoon dafay am matricule matricule yi du ñu nuroo beneen bii nii matricule bu ndaw lay am bi matricule mooy gën a mag comme matricule oto lañ koy defal daanaka waa bu fekkee tableau bii dong ko gis li expliqué waale tableau yi bu fekkee tableau bii dong ko gis lii tableau bu ñuy tere la fii dañuy tere ki nga xam ne motocyclette motocyclette laa wax nag mooy mooy moto boo xam ne ni nii puissance am dafa mag jëm cent vingt cinq jëm kaw dañuy tere ku fa dañ koy tere mu dugg fa léegi da ngay xool moto bi nuñ ko defal dessiné si biir ak beneen bi nga xam ne nii moom lañ tuddee moto cyclomoteur nuñ ko dessiné comme benn ngi nii xoolal bu baax nga xàmmee ko xam ne bii motocyclette yi lay tere maanaam ñi nga xam ne seen scooter yi seen moto yi dañoo dañoo puissance bi dafa diis soo ñëwee si table bii nii table bi dañuy tere oto bu mag camion double oto bu ndaw camion la ñuy tere mu double oto bu ndaw mais oto bu ndaw mun na doubler oto bu ndaw mais scooter aussi mun na wala ah, wala moto mun na doubler oto bu oto bu ndaw mais oto bu oto bu ndaw aussi mun na doubler moto kon fii mot oto yu mag yi camions yi la ñuy tere ñu doubler voilà bii ak bële dañu xaw a wute boo xoolee bii moo gën a nuroog engin tey jii sax bu ma nee wala ma ne caaw am na ñoo xam ne dinañ xam moom la gën a nuroo dessin bi léegi nag yii lañu ñu cyclomoteur euh, mais boo ko gisee day war ne ne dañ fa dañuy tere pour cyclomoteur jaar fa wala scooter bu ndaw nga xam ne dépassé wul du daw vitesse am du dépassé soixante dix kilomètres ba cinquante kilomètres dañuy tere ku fa jaar. bu dee bii la nag dañuy tere bépp camion bi nga xam ne dafa chargé <coughs> dafa chargé wala mu doon camion buy chargé dañuy tere mu jaar fa bépp camion nag lépp koo xam ne loo ak loo mënti chargé dañuy tere nga jaar fa. bu dee bii dañuy tere vélo bu fa jaar boo xoolee yuron rond yi yëpp lu ñuy tere la waaw soo gisee euh, photo yi ñëw ni si diggante bi ma expliquer si wàll leneen lii da ngay xool ne dañ doon damay expliquer ki nga xam ne oto euh, permis B la yor permis poids léger oto yi yëpp am na droit dawal ko maanaam mun na dawal oto bu normal oto bu oto bu yam boo xam ne nii du dépassé MMA bi du dépassé poids bi yëpp yëpp yëpp yëpp bu si nit ñi nekkee yëpp du dépassé trois virgule cinq tonnes dina mun a dawal oto bële bi dina mën a dawal bis bis boo xam ne nii neuf places la maanaam huit place ak chauffeur bi muy neuf dina mën a dawal tamit genre oto yi nga xam ne day mën a am charge donc ki nga xam ne permis B la yor permettre nañ ko mu dawal oto yi yëpp fii nag panneau bi. panneau triangle nekkul panneau rond panneau triangle nag lu muy annoncé mooy danger fii day wane ne danger ah mi ngi si kanam danger lan la danger ay xaraki nag ay rabu àll ne ah fi ngay jëm nii de ay rabu àll dañ fay traversé mun na nekk mun na nekk euh, troupeau wu xar mun na nekk euh, troupeau wu nekk maanaam mun na nekk ay xar yu bëri ay nag yu bëri wala benn xar wala benn animal boo xam ne sauvage la si àll bi la nekk dafay traversé donc triangle bi day wax ne signal danger la yeneen rond yi day tere waaw bii tamit dafa rond day tere mi ngi tere bis dañuy wax ne ah fii de bis du fi jaar fii bis waru fee bu dee bii nga xam ne moom laay jeexalee leçon bi bii mi ngi wane ne ah fii de dañuy tere saret bu fi képp ki nga xam ne dafa am atelier am ay sareet yu ñu takkalante wala mbaam bu ñu takkale wala leneen dañuy tere nga jàll fi panneau yi nag moom dafa war a maa ngi am suñu dëkk yi ndax comme suñu dëkk yi dafa bëri ay ñu utiliser sareet ay voiture ñoom it dañ leen war a defal ay panneau yi nga xam ne nii ah wala ñoo yéeg si autoroute à péage bi ñoom it ñu xam ko daanaka ñoom it tamit di nga xam ne di utiliser ay sareet yooyu dañ ko war a xam dañu war a xam aussi que ne ñoom si tali bi lañ bokk am na lu ñu war a def ak lu ñu warta def comme lu mel ni ki nga xam ne nii tamit fàtte woon naa ko ki nga xam ne nii dafa nekk yor troupeau maanaam nga benn sàmmkat bu yoree ay sàmbam ay bëyam ak xaram ak nag di dox si kii bi moom dañ ko considérer comme moom mooy conducteur bi moom mooy conduire animal donc moom mooy responsable animal kon sàmmkat bu ñëwee si génnee si àll ba ñëw si biir dëkk bi dañ ko considérer comme conducteur ndax lii moom ma ko fàttali donc euh, falaa yemale leçon bi di leen jaajëfal di leen wax euh, ba beneen yoon naay ñëwaat si yeneen leçon comme ñu nag yéen la comme ni ma ko waxee maa ngi nag si telegram bi de plus que si whatsapp bi parce que telegram bi moo gën a jàppale nit ñëpp dinañ mën a dugg falaa def leçon yi mais teewul dinaay continuer di def vidéo yi di leen wax ne vidéo yi nag ku ko soxla da ngay dem si YouTube nga seetaan ko ndax daanaka presque yu nit ñi di laaj yu bëri def naa ko boo seetaanee vidéo yi rek topp ko benn par benn doo ko rëccu te di nga xam lu bëri xam-xam bi nag nekkul ne juste pour xam pour dem defi sa permis Sénégal mais xam pour bañ a yàqal kenn te bañ a rey doomu aadama yi loolu da see am solo te lii may jàngale boo xasee ñëw Europe wala dëkk boo dem boo ko mokkalee di nga fa mën a dawal kon maa ngi leen di jaajëfal ba beneen yoon.